premier avertissement nag mu ngi nii. Hmm. bis mu ñaaree. Hmm. du baax de parce que suñu sama waay la fekk naa ko moom fekk naa ko ci plateau bi moo père Bekaay ma nuyu ko. kan Tafa hmm. ngir yàlla war a suuri bàyyil doomu jaamur ji bàyyi leen jaamur dégg nga. bàyyi leen jaamur man amul kenn si ñoom koo xamante ne rek mun naa la xool di sëgg damaa indi Balla Gaye numéro un moo ko njëkk daan ci arène. du baabooy de Balla Gaye numéro un mhm. moo ko njëkk jox jox defet ci carrière ñoom ñëpp am na fu ma jaar ak ñoom mais ñi gën a nekk sama xarit Fass mooy waa kër ñoom Papa Sow. mais Tapha dafa analyser wala dafa. analyser wul dafa for. analyser ak for bokkul daa for xam nga ay Aziz Ndiaye dañoo gaaw loxo. waaw ah, dañoo jàpp waaw ñoom Aziz Ndiaye. Mm. dañoo yëwen ci xaalis. ma leen di nuyu bu baax ñoom Khalil ñoom Badou waa kër Aziz Ndiaye yëpp maa ngi leen di nuyu mais yooyu daanuñu de loolu daanu Eumeu Sène dégg nga buy bërewaat ak Pikine nañu indiwaat borom kagul bi nañ ko indiwaat eh, yooyu nga solaa sa kagul la ma sol kagul sax mais xam naa dina ma abal géew bi lii victoire la amuñu dara luñ ciy rëccu kontaan nañ ci mais li ñu ci gën a di nuyu waa Gambie aussi tamit bu baax a baax di gërëm ñëpp parce que liñ ci gën a amal solo mooy ñu wax ci contexte bi gars yi joxe. la dëgër yow da ngaa toog ci télé bi ne Eumeu Sène mag la Eumeu Sène yow yaa ko mag Pathé Baldé am na ñu seetaanul ay kombaam ci xale yi xamuñu Pathé Baldé ku dem ba daan Pathé Baldé mbapat. boo taxawee ne yow Eumeu Sène mag la loolu da nga koy wax euh, xale yi juddu tey ñun làmb démb lañ fekkee bi ñuy bëree stade Iba Mar ñun dañ doon ñëw stade di ànd ak Eumeu Sène amuñu leen loo xamante ne nii dañ koy rëccu suñu combat bi passé indi nañu suñu mbër nit ñaa ngi ñu doon wax defaru leen defaruwaat nañ àdduna bi yëpp kontaan nañu ñun daal wax dëgg yàlla ak yeneen bi recours sax gars yi def nañ ko mais gëm nañ ne la de guerre jëm boppam actuellement nii moom gàcce da koo topp parce que yow nga bëree ba pare. kenn taxaw remercier la lii dafa ñaaw li Pape Sarr wax nag dëgg la 3000 jàmbur yi na ko joxe. na joxe 3000 supporters yi na leen ko jox parce que moomu ko moomu ko kii moom xaalisu amateur mooy kii ñëw bégal ko mais ki nga xam ne day ñëw ci làmb taxaw di fecc uppal ma arrière léegi xale yi génn lañ ko way uppal ma damay arrière lañ ko tuddal di upp say loxo ci kaw di sànni sa taat loolu du bëre yow Eumeu Sène songoo ko benn yoon ñu gis nga jàpp tànkam wala nga jàpp loxoom kon ça veut que ni ñemewoo ko jiitu deux heures ci estade bi def li nga war a def yëpp ci estade bi te taxul nga mën ci Eumeu Sène dara Eumeu Sène champion la ma leen di wax ne yéen ñi nga xam ne yéenay faral Eumeu Sène yéen ñëpp rappel ñëw leen ñëwaat leen ci kawam parce que Eumeu Sène mi ngi retourné waat ak force boo xamante ni actuellement jotaat roi bi mooy sunu objectif te moom la ñu bëgg. Ah, kon pare nañu ah, pour. pare nañu pour jëlaat affaire bi parce que li koy maye xam nañ ko. li koy maye xam nañ ko ndab kenn du ci fot fotaat ci Pikine Eumeu Sène mag la ama xam nga ma bu baax maa la yar Kër Fallaye Balde booy Niang maa la ñoo la yoroon box centre Zac Sirat ñoom Modou Ndiol ñoom Tony suñu rak ngeen dara yàqul suñu diggante dafa rafet ñun ñëpp jàmm lañ séq Eumeu seen doon seen mag défaillant yi leen di bëgg a jaxase ak Pikine bañ leen yéen waa pikin ngeen bañ ànd ak Eumeu jiital ko parce que seen mooy seen mag te maman yi muy jël roi bi jafe na Pikine amatu fa parce que Tyson bàyyi na Tyson bàyyi na xale yi jotaguñ ci mbër yu mag yi Eumeu Sène dem jëlal ñu roi arène indil ñu ko kon lam ñu waxoon def na ko loolu moom yéen ñëpp maa ngi leen di wax ngeen remercier ko ci parce que li mu waxoon la def def na naa leen indil roi bi léegi nag bonus bi moo des démb mosal nañu li ñu gis doy nañu dañuy reprendre rat seen entraînement mais Eumeu Sène moom bëggatuñu ku ko sotti gàllaa ci biir géew bi bëggatuñu ku koy menacer ci biir géew bi bëggatuñu ku Eumeu Sène di bëreel ngay koy def lu neex lool jeex na loolu moom jeex na na ko mbër yëpp xam Eumeu mm. Sène bu ñëwatee nañ ko bàyyi mu dugg ci làmb def li làmb laaj parce que day bëggal amateurs yi tous Eumeu Sène jar na dagg billet tous Eumeu Sène jar na dagg bi waa ji koy tëggal kenn ku nekk xam nga ko muy moor Ngom tëggkatu làmb bu mag la di tëggal Eumeu Sène loo xam ne nag kenn bàkkoogu ko fii ba léegi Mor Ngom danaan leen bàkk bi ni ma ko bëggee sax Eumeu Sène dong moo ko ci man kon loolu loolu amateurs yi nañ ko fonk nañ xam ne Mor Euh, artiste la boo xamante ne nii mu ngi indiwaat culture séeréer ci làmb ji di nuyu séeréel yëpp nag gis nañ seen taxawaay ci combat bi séeréer yi jàpp ngeen ci combat bi bu baax a baax a baax a baax suñu mbokk séeréer yi Eumeu Sène mu ngi leen di gërëm bu baax di nuyu waa Gambie di nuyu fans club bi di nuyu waa Badiana di nuyu ñëpp Cheikh Abdoul Karim ñoo ngi lay bégge bu baax Mbacke Balaye sa ñu ngi siyaar baax a baax ndam li daal ñu ngi koy may képp koo xam ne bëgg nga Eumeu Sène ndax lii ndam la ci Eumeu Sène parce que li tax mooy yow da nga ne mag la ñun buñ ko ne woon demal mu dem mais dañ ko ne comme dalay fontoo taxawal déglu ko est-ce que mën nañoo dikkee ci lu Tafa Gueye wax ak ñu doon wax c'est-à-dire ñooñu du ma wax seen wax parce que xam nga lu tax hmm. seen liggéey la ñuy def mais dafa am loo xam ne soo koy wax dee ci sóoraale askan wi doomu jàmbur bu àndeek mbokkam ñëw ci làmb di bëre hmm. di bëre koo xam ne du dem du dikk day taxaw di la def di la di soofal làmb hmm. kooku man du ma am lu ma leen wax parce que damay defe ne rek maanaam euh, seen seen seen xel fa toll mais am na ñoo xam ne gisewuñ noonu mais comme yéen nekkoon foofu noonu nga dikkaluñ tuuti rek ci ñoo xam ne Tapha Gueye ak yi dégg nga ko ci lu ñuy wax amu seen man maa ngi woon ci làmb ji man maa ngi ca guerre ba guerre bi dama cee saf-sap mhm. parce que ama seen fu mu naanee doom ñun ñu pikiroo fa mhm. dañu nekkoon nag ci ginnaaw xaw a sori tuuti mais dem nañ ba gis ne lii jege la laaj dañuy ñëw de mhm. mbër bu ko mën a jël dootoo affronter ama seen dootoo dox ci kawam dootoo ko xëpp gàllaaj dootoo ko def lu ko neex jamais loolu jeex na mbër bu jëlet Eumeu Sène na nga ko bàyyi mu tranquille bëreeg yow mais bis ko sottee dara lamb jooju moom boo moytuwul dana yàqu parce que ñun ñoo ko dul seetaan ay xaritu enfant ñoo jog ànd ak waa pikin ànd ak waa Gambie ànd ak ñëpp jog taxaw képp koo xam ne daal bëgg nga Eumeu Sène ñu ngi lay ñaan nga gën a jàpp mu dëgër te xam ne Eumeu Sène daanaan la mbër waada la man xam naa ko bu baax mbëru Pikine yi nañ ko fay borom Eumeu Sène gunge na ku ne ñoo daan ànd fajar di yeewu di ànd ak mbër yi ñu mag géej di dem saal tey lii lañ ko mën a fayee mais nag yàlla baax na parce que man chaque jour bu bu génnee ma jooy mu ne ma looy jooy ma ne ko damaa xam ne li nga leble ci teraanga ci làmb ak liñ la fay dafa waroo lii rek moom a jooy jooyloo ama seen boo doon génn Pikine kenn warul des ñëpp war a ñëw waaye nag ku yàlla fay moo gën ku nit fay. waxuma Pikine mbër ya la pikin de ama seen na ko yor mbër ya ci mbër yu mag ya laay wax. mbër yu mag yi mbër yu mag yi laay wax xam nañ seen bopp ña fa jiitu. daw daw làqu yi laay wax ñooñu xam nañ seen bopp sequma ak ñoom dara moo tax du ma mën a tudd seen tur mais man dama dama mer ci ni ñu dundee ak moom parce que Eumeu Sène daf leen lebal teraanga jël ay combat yu bari yoo xam ne moo leen di gunge di leen jàngal bëre di leen daan géej ñenn ñi bu ñuy ñëw dañ daan diwoo saafara contact ndax bëgg a daan Eumeu seen am na mbër yoo xam ne biir Pikine lañ nekkoon xam nañ seen bopp nañ ma xool bu baax suñ daan ñëw entraînement dañuy sangu diw ngir bëgg a daan Eumeu Sène entraînement Eumeu bëreegul. mais mënuñu cee wax kenn rek koo xam ne. bari na grand yow tamit. wax ju yegg dafa ko moom. waaw mayu ci kenn rek. dama ne. wax ju yeg dafa ko moom. comme man kenn tuddul sama tur. Hmm. maa ngi xam li ma xam noppi. mais képp ku laalet Eumeu Sène Pape Sarr na ma woo. li ma fekk bëri na de ku laalet ku laalet Eumeu Sène rek Pape Sarr rek sama numéro dina ma woo te taxaw nañu pour defaat beneen carrière bu bees aussi tamit ci làmb pour tëjee ko loolu na ci supporter yëpp bàyyi xel. mais est-ce que ku mel ni Baboye euh, diggante ngeen ci làmb ji. ay doo bàyyi man ku ma tudd laay tudd waay grand. bu ma grand bul yàq émission bi waaye xam nga lu tax. Euh. man man gunge naa mbaru Pikine. Hmm. doon naa seen booy. Hmm. ëmma seen doon na seen booy. Hmm. mais tey man waxatuma côté boobu man xam nga ban côté laay waxee. côté may waxee mooy nekk ci ëmma seen. parce que man xamaguñ ma ci média yi du ma wax média lu bari mais li tax ma jël micro sax jël ne Pape Sarr may ma ma wax sama xol dafa sot. Eumeu Sène na journaliste yi xam ne li ñuy wax ci moom na rafet parce que Eumeu Sène du yàq làmb ay kàddoom ñaawul aussi tamit nit la bu dal boo xamante ne nii buy wax chaque jour danaan leen man mënewuma wax jëf laa mëne la degeer nag li nga waxoon defoo ko da nga ne su ma ñëwee dina dox ci kawam naa ko duma dinaa ko daan dóor sax defoo ko se yi gudd moo tax nga gaañ ko Eumeu Sène boo ko gisee taful dara ci kanamam nga nekk géejawaay naan Eumeu Sène ah bët ba toj naa kanam nga toj na Eumeu Sène léegi mu génn jàkkaarloo ak yow Eumeu Sène dara dalu ko dara dalu ko barke Seydina Mohamed dégg nañ nga da nga ne Eumeu Sène da nga ko dóor bëñ bi deñ bakkan bi toj yax bi toj c'est faux ku gis Eumeu Sène tey di nga xam ne ñii li ñuy wax amul làmb du ay wax làmb jëf la boo leen te combat dee leen bëre di songo di di dóorante mais jël xaalisu jàmbur ba pare nekk ci làmb ji di taxaw di sànni say loxo ci kaw indi ay fuur la xaw ma ay ay fuuru jàmbur ngeen tuxal taal géew bi yëpp fii lu fi waaye def ñu yàq ko ñun gënoo leen ñu xam lamb lu fi waaye defati Eumeu Sène dañ koy kalaate peace and love ñi ngi bëgg ñëpp nag jaa ngeen jëf Sarr yow sama lonko nga ku la laal daf may laal yow ku la laal dina ma laal barke Serigne Touba yow amal jàmm ñun ñooy pikin ñun ñooy pikin ngay wax ñun man ak ñooy pikin kontaan nañu sama gars yi peace and love